وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمهدرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليهم بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبقون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عبادا غير المقلسين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم قد وأبصرهم فسوف يبصرون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 لآيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلا وما يستقرون وقالوا يا لمجنون لو ọ̀hún wà ní. ولي السماء بروجا وزيناها للناظرين وقفزنا من كل سيطان لقد علمنا المستقرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من قمأ مسنون والجان قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من طمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الصاجدين صدق الله العظيم ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم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 inna alladina kafaru lan tugni anhum amwaluhum wala awladuhum min allahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna walladina min qablihim kadhabu bi ayatina fa axadahum allahu bi zunubihim wallahu shadidul iqaab qul lilladina kafaru satughlabuuna wa tuhsharuuna ila jahannama wa bi'sal mihaad qad kaana lakum aayatun fi fi'atayni taqataa فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب sadaqallahul euh, jërëjëf jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan seen chaîne bii di Naby TV euh, seen émission bi nga xam ne rek mooy émission doomu daara yi émission doomu daara yi di leen demal ci daara yi di leen wan xale yi nga xam ne ñooy jàng alquranul karim rawatina sëriñu daara yi tey nag maa ngi fii ci Mbambilor fi ñuy wax cité Comico ci daara alxaaji Cheikh Moussa Diakhaté Eh, di daara ju xam ne day jàngale alquran di yar xale yi ci yarin bu am solo tey nag ma ñëw fekk fi sëriñu daara ji tabaarakalla di doomu soxna di alxaaji Cheikh Bekay Jaxate alxaaji seex Bekay ñu ngi lay nuyu di la ziar. alhamdulilah ñu ngi lay fay oustaz salaamaaleykum wa rahmatullahi wa Euh, tabaarakàllaa tey nag ñëw nañu fii nga xam ne mooy euh, Mbambi euh, Mbambilor mhm. fii nga xam ne moom la ñuy wax cité comico mhm. tabaarakàllaa ñu fekk fi daara ji mhm. tey nag nga fiy jàngale alquran di fi yar xale yi buñ la bëggoon laaj daara ji ñaata at la amagum alhamdulilah daara ji war mu ngi toll ci juróom-benn at. ndax hmm. euh, premier avril 2016 ci lañ taxawal daara ji. Hmm. tey yaakaar naa ne moom mooy premier avril. 2021. alhamdulilah ibaadu mu war a toll ci juróom-benn at. Euh, juróom-benn at la daara Alhaji Cheikh Moussa Diakhaté am hmm. fii nga xam ne mooy Mbambilor cité comico waaye nag euh, tey émission bi ñu la jagleel. mooy wan nit ñi kan mooy seriñu daara ji. tey bu ñu bëggoon a xam rek kan mooy Cheikh Bécaye Diakhaté en tant que doomu daara. jaar ci daara mhm. dundu daara mhm. tey ñëw taxawal daara mhm. euh, tey boo ñu mën a jàngal rek kan mooy Cheikh Moussa euh, ki nga xam ne rek moom mooy Cheikh Bekkaay Jaxate lan nga ñu mën a wax euh, alhamdulillahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax oustaz ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu ñu suñu jaamu yàlla waaye di ñaan yàlla mu jéggal ñu suñu bàkkaar fa tabarakallahu di am mbégte bu baax a baax a baax ci teewaay wi ci daara ji ci gàttal bu ñu bëggoon a xam rek kan mooy Cheikh Bekkaay Jaxate mu ngi juddoo dëkk bi ñu naan Njaasaan ci ëttu euh, maam Sidi Yaxya Kunta radiallahu anhu maam Sidi Yaxya moom moo nekkoon ñeenteelu xalifa bu Cheikh bu Mouhamed Kunta doonoon doomu Cheikh bu Kunta wa tabarakallahu bàyyi bu di caatam tuddee ma Cheikh Albekaay euh, sama wayjur bu góor di El Hadji Cheikh Moussa Jaxate nga xam ne ñu bëree bëri xam nañ ko ci yoon tarixatul xaadiriya euh, féete fii ci Tëngéej sëriñ bi teg ko fi sama ji bu jigéen di soxna Faatu Haydara fa tabarakallahu ci laa gane àdduna Njaasaan nekk fa ba toll ci sept ans huit ci lañ ma yóbbu ci sama dëkk boo xam ne sama maam moo fa sancoon di Bouna Chérif nga xam ni moo jur sama wayjur bu jigéen fële ca Dagga ca Saloum fa laa nekk jàng fa alquraanu karim ba pare ci jàng alquraanu karim ginnaaw loolu moom fay jógee yaakaar naa maa ngi toll ci fukki at ci laa ñibbisee ñëw Tëngéej sama kër papa euh, El Hadj Cheikh Moussa Diakhaté euh, ñëw mu dugal ma ci daara ju ñu naan Nurul Huda boo xam ne euh, Oustaz Omar Diop moom moo ko yoroon fa tabarakallahu di profité di ko ñaanal yàlla yal na yàlla xare ko àjjana euh, génn na àdduna di ñaanal njabootam ñi mu bàyyi ci daara ji ñoom pammaar yi fa tabarakallahu di ñaan yàlla yàlla na dëgëral leen fa la ñu nekk nekk fa ba am li ñuy tuddee certificat ginnaaw loolu ñu jógee fa dem alfalaax ba ñu demee falaax nekk nañ fa euh, jàng fa def fa sixième ba cinquième ba quatrième hmm. jógee falaax dem li nga xamante moom mooy tafsir euh, tafsir Amadou Ba bu Pikine hmm. fa la ñuy jàngee nekk fa defee fa BFM amee fa BFM def fa seconde première ba terminale fa la ñu amee bac. Hmm. ginnaaw ba yàlla defee nag euh, jamono bi nga xam ñu ngi jàng franco arabe euh, bu vacance daan jot dañ daan dem ci daara lu mel ni Tivaouane. maa hmm. ñu dem Ndar doon jàng majalis. Hmm. nga xam ni booba ñu ngi nekk Tivaouane ci kër gu mag gi. nga xam ni chaque àllarba sax maa ngi fàttaliku daan nañ dem ci euh, ki nga xamante moom mooy. Ndiol Fouta ni ñu koy waxee. Eh, mm-hmm. bi nga xam chaque mercredi ñu daan dem di nettoyer bibliothèque bi. Mm-hmm. ci kaw nga xam ne ci daara ju mag jooju. fa daan nekk di jàng majalis vacances bu jotee jàng fa lu mel ni fiqh. Mm-hmm. jàng fa lu mel ni naxu ak yeneen téere yoo xam ne téere mag ñi la. Eh, nekk ci nekk ci nekk ci chaque vacance dem ba ñu dem ndax. Eh, nekk fa di jàng ba ni ñu amee bac. ginnaaw bi nga xam ne am nañ bac ci la ñu yëg ni kat war nañu mën a génn ngir mën a jàng ji. laa waxtaan ak sama waajur Cheikh Moussa Diakhaté mu jox ñu ndigal ñu daal di génn dem Mauritanie ci benn dëkk bu ñu naan Nabaaxiya fa lañ nekk jàng fa eh, yenn téere yi bari bari bari ci wàllu majaalis ak yu mel noonu alhamdulilah rabbil alamin ba yàlla defal ñu fatxu ba li ñu yaakaar ne kat mën nañoo toog ngir mën a jàngale alquraanu karim waaye mën nañoo toog ngir mën a jàngale yenn téere mag ñi wala téere fiqee yu mel noonu ci lañ yëg 2016 premier avril ci laa ne kat incha allahu rabbi jot na ngir ñu mën a daal di taxawal li nga xam ne mooy daara ji waaye lu njëkk loolu bokkoon na ci sama bëgg-bëgg jamono ju nekk bu may jàng mooy incha allah bi ñaan na yàlla ma dem bay tijji daara di tàggat ay doomu adama ndax dafa am benn xadis boo xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko waxoon mu daal ñuy doon lu ñu marqué mooy la yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne xayrukum man taallama alqurana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale benn góor daal ne ma mooy tamit ki jàng alxuraan di ko jàngale waaye jëfe koo pare di ko digle ñu ko jëfe hmm. loo xam ne lu bëgg la ndax àdduna Euh, doomu aadama lu mu faggu lu ko teg li nga xam ne kat mooy jàngale yàlla ak yonent bi suba perte ma lay doon ci yow loolu ñu gënoon a pousse ñu dem dem ba 2016 incha allah rab ba ñu ñëwee daal di waxtaan a góor gi suñu wuyu El Hadj Cheikh Moussa mu jox ñu ndigal ñuy dox ndax xamuñu woon sax bërëb bi di dox di dox fan lañ ko war a mën a tijji ba ñu xoolee tëngee location jafe lool sax ñu daal di ñëw ba ñu si fii ci ndimbalu yàlla ci lañ yàlla indi fii ñu daal koy jël ne fi eh, di jàngale alquraanu karim waaye ne fi di jéem ba keroog yàlla def alhamdulilahi rabbi alamin daara ji toll fii ba tey alhamdulilah am xale yoo xam ñu ngi wàcc alquran di mokk alquraanu karim ci daara ji loolu daal moom mooy oustaz eh, ci gàttal kan mooy Cheikh Bécaye tabarakallah eh, tabarakallah xam naa li xale yi naan da nga mbapat hmm. mbapat la ñuy wax tabarakallah Euh, gis ngeen doomu mm. daara yaa ngi nii mm. euh, kon ñi xamagul daara xamuñu daara mm. tabarakallah gis ngeen fa mu wax fala jaar euh, na mu tàmbalee ca foofu ca Njaasaan tabarakallah jàng fa na mu demee Saalum tabarakallah ñëw fii ci wayjur yi jaar alfalaax na mu jaaree tamit ca Tiwaawan ca Ndar tabarakallah ba ni mu demee Murtani waaye tamit ba mu jàngee ba ñëw ñëwaat dellu siwaat ci wayjur yi nga xam ne rek doomu daara lépp lu mu am na ko delloowaat ci daara tabaarakalla eh, ñëw fii nga xam ne moom la ñuy wax cité comico nga xam ne eh, mm-hmm. waa armée bi ñu ngi fi waaye tamit di jàngal tamit seen i njaboot mm-hmm. waaye tamit nekk imam tamit ci jumaa ji mm-hmm. eh, tabaarakalla di ci def yu am am solo Cheikh Becaye tay daara macha allah yonent bi nee na yéen ñi ko jàng di ko jàngale yéen nekk ñi fi gën waaye dafa mel ni jàngale neexul de ah kay oustaz jàngale neexul ndax. Euh, ndax man li tax ma wax ko. Mhm. ndeysaan bu ma ñëwee fii sama rongoñ. Mhm. day day tuuru ah. ndax xale yu ndaw yi ngay gis. Mhm. tabaarakalla waaye nag euh, ñi lay jàppale ci daara ji. ak miineelu xale yi. ak nemmant bi xam ne moo am ci biir xale yi. loolu laa bëgg rek nga nga wax ñu euh, ci wàllu taxawaay bi. alhamdulilah xam nga damay faral di wax sama jotaay lu bëree bëri. mooy jàngale alquraan ak daara dafa am yàlla tàggat jox leen ko. nit di nga jàng ba am xam-xam jeexal téere yi bëree bëri waaye da ngay gis pour nga toog jàngal dafay doon problème mm-hmm. da ngay am dañu mbokk yoo xam ne yàlla boole ñu xamante bu ñu ñëwee ci daara ji bu ñu fi defee dix minutes mm-hmm. dañ ñaan ñoom mën ñoo toog ci daara ji te mm-hmm. pourtant ay boroom xam-xam lañ waaye dafay firndeel kat la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla dafa am ñu muy orienté ci ay jaamam man leen tàggat ba ñu mën a jaar ci yoon boobu ngir mën a dimbali xale yi. Mm-hmm. beneen bi mooy da ngay nekk xale dem ba ci yàgg euh, maanaam amour bi. Mm-hmm. ak yow comme ci nga yaroo beneen bi. Mm-hmm. mooy yaakaar naa lu mu métti métti doo ko yëg parce que ci nga jaar. mooy ci daara nga jaar jaar ci métti bi. xam dama koy faral di wax xale yenn saa yi bu courant coupé ñu taal ma taal téléphone bi ñuy ñuy jàng. ma leen uti naa ñun dañuy nekk daara. nga xam ni pour ñu xool li ñuy jàng guddi gi faaw ñu dem taxani bu ngoonee. ngir mën a tàll wër tàkk-tàkk bi ci jàng. kon jaar nga jaar nga ci daara daara taxan. ah kañ daara te te teg ko. teg ko di jàng muy tàkk nga sa aliwa di jàng. ah man damaa ngi bëggoon si doom boobu doom bi <laughs> doom boobu. mag ñi dafa am lu ñu ci wax tabaarakalla nee na jaar na ci daara ah, jooju nga xam dañuy teg matt mi ah, taal ko tiim ko di jàng ci lañ jàngee ba keroog ñuy pare ci alxuraanu karim est ndax yaakaar naa ni Saloum léegi bu amee courant yàggatul léegi la dëgg la jamono yi noonu lañu def moo tax xale yi dama lay wax ne léegi dafa yomb léegi hmm. bu ñu jaaree ci loolu ak métti yooyu tey ji ñëw ba yàlla na toll li hmm. mu métti métti doo yëg métti bi hmm. parce que bëgg-bëgg la yenn saa xale da ngay da ngay da ngay da ngay mel ni ku tumuranke lan mooy ñàkk gis xale ñàkk gi nga ñàkk gis mhm. parce que yàlla dem na boole ko ci yow mhm. loolu war a dem nga gis taxawaay bi ñu am di jàppale mhm. xam nga démb rek maa la koy wax nga xawal tey ji xale yi seen dàqanteeg lu nekk mm-hmm. lu ne mën na ci lay fekk mm-hmm. waaye bu fekkoon yow kase dong la su boobaa man naa metti mm-hmm. waaye jamono ju nekk boo gertoo yaa ngi gis ñoo xam ne seen it yëpp mooy ngir mën a taxaw ci xale yi waaye am yërmande ci xale yi lool sax ba tey boo leen fekkoon ñu toog xale yi da naa naan ñii xanaa duñu ustaasu xale yi kaf bi ñuy def ak reetaan bi ñuy def xale yi waaye bu jàng jotee ñu ne xale yi kat jàng moo tax lu mu métti métti alhamdulilahi bi alamin ñu ciy sant yàlla bu baax a baax yàlla daal li may faral di wax kilifa yi yenn saa bu ñu seet daan ne kat ay jàmbaar ngeen mën a déet di ñu jàmbaar mm-hmm. ñaanal leen ñu yàlla kat yàlla saa yi bu ñu xëy may ñu xolu mm-hmm. ndax xale kuy nekk ak moom del ñaan yàlla yàlla may la xolu muñ mm-hmm. ndax saa yi boo xëyee suba surtout ndongo daara li muy def mënoo ko natt ci yéeme gi mu yéeme chaque jour li ñuy def ci waaye da ngay ñaan yàlla yàlla may ma xolu muñ ngir ma mën leen accepté kon alhamdulilahi rabbil alamin te loolu yiw la yonent bi mm. sallallahu alayhi wa sallam gis na ni mu meloon ak ndaw ñi mm. ni mu meloon xale yi mm. yar gi mu daan tàggat mag ñi suñu magu réew ñu gis tamit ñoom nu ñu meloon ci li nga xam moom mooy tutànk yi gis tey koo ci jàng da nga naan dégg ñu ne danaan toog xale yi yëpp daat koy wër seen alal jox xale yi kooku alhamdulilahi rabbil alamin kon muñ ci yàlla boolee oustaz dañuy sant yàlla bu baax a baax a euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan tey émission bi dañ ko jagleel doomu daara yi euh, ndax tamit télévision bi li ko tax a jóg mooy wane mbaaxu daara la tey ñu ñëw fii nga xam ne mooy cité comico seet si alxaaji Cheikh Bécaye Jaxate ci daara ji dégg ngeen rek li nga xam ne juñu na ko jëmale ko ci daara waaye tamit yar gi waaye tamit taxawaay bi mu mel ni rek doomu daara yi la yal na yàlla dëgëral leen te sàmm leen ndax ku nekk xam nañ ne réew mi doomu daara ji def nañ fi euh, taxawaay yu am am solo mm-hmm. ndax daara mooy gàllaaju Sénégal mm-hmm. tabaarakalla te lii bokk na si li koy dundal ndax boo xoolee xale yi xale yi bokk ñuy si ñi nga xam ne ñooy toj mhm. bokk ñi si ñi nga xam ne ñooy ñooy yàq mhm. waaye nag fu ñu leen di former fii ci biir daara ji la mhm. euh, tey yaru démb ak yaru tey ci wàllu daara loo ñu mën a indil waaw alhamdulilah rabbil alamin euh, oustaz euh, fu mu jamono biñ toll nii yaru démb ak yaru taw tey wute na lu bari bari bari bari ndax damay fàttaliku ñun jamono bi ñuy nekk daara nga xam ni tey jii sa waajur bi la yóbbu ngir nga dem jàngi hmm. yitteem yëpp mooy ngir nga mën a am xam-xam rek hmm. waaye leneen li ci des yëpp moom toppatoo ko hmm. ndax nee na sëriñ bi kat li ma bëgg mooy defal ma ci moom tarbiya mooy mu am yar boo xam ne yar bu baax la boo fu ñu ko gisee xam ni kii yar nañ ko ñaareel bi na xam-xam nekk ci moom nga xool ni tey jii lu mu métti métti métti sa waajur bu daan ñëw yem sax ci métti googu daawul wax waaye daf ko sant yàlla ndax xam na ne ëllëg yi daf lay jural ak li moom mooy ak xéewal daf lay jural ëllëg ku la gis man laa jox ab waaye loolu boo ko nattee ak yarug léegi nii. Mm. li tax mu xaw a métti mooy da ngay gis waajur boo xam dafay indi njabootam. Mm. waaye yow sa yitte yëpp yow miy jàngale mooy fexe ba yar xale bi. Mm. ngir mën koo teg ci jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye fexe ba jàngal ko alquranu karim. ndax benn mag daan na faral di wax daan ne nit lu am am xam-xam. te amul yar su boobaa dañ ak xam-xam boole ko xam-xam bi toroxal ko mm. waaye bu fekkee ne am na yar xam-xam bi lu mu néew néew fu mu mu taxaw fu nekk ñu daal koy naawloo mm. ndax yar gi mm. moo tax yonent bi ne adada ada rabbi fa ahsan ta'dibi yàlla yar na ma yar xam yar gu rafet la moo tax kon nga gis tey jamono ji gën a metti ci yar bu léegi bokk la yar bu njëkk ba parce que léegi waajur bi mu ngi joxe gi ngir muy jàng ji waaye bëggul ba muy joxe doom ji moom yaakaarul ne doom ji kat war nañ ko mën a defal tarbiya mhm. parce que lu tax mooy xale yi nga dajale ku ci mhm. nekk ak ni mu mel mhm. am na xale boo xam ne boo waxee rek mu daal am na xale boo xam ne boo ko xoolee rek moom bàyyi na lépp am na xale boo xam ne faaw nga dompet ko moo tax lan la mag ñi lañ daan def naari daan def muy kaata faaw nga kaata ko ok kuccel amatul déedéet <laughs> moom wala xale yi xamuñu kuccel <laughs> déedéet xamuñu kuccel <laughs> léegi nag parce que euh, jamono moo laaj loolu parce que li bëree bari bëri li ñu indi léegi ci daara dama koy wax mooy da ngay gis koo xam dafay am njabootam ci biir këram. Hmm. waaye day xool ki gën ki gën a gën a lëj. Hmm. moom lay jël indi ko ci daara ji. Hmm. ba damaa bëgg daal damaa bëgg nga defal ci moom xam-xam. léegi ki nga xamante moom ku ku ku dal la. ku ku ku yeewu la dañ koy jël yóbbu ko moom jàngi école. waaye ki gën a la janñaa nañ ko indi ci daara ji parce que lu tax mooy faaw ñu indi ko daara mooy waral sa ngi ne gis nga kii dafa lëj moo tax ma yóbbu ko daara léegi nag pour nga mën a defal loolu nga am benn patience boo xam moom ngay def mhm. léegi moo tax dafay wuti lu bëree bëri yar démb ak yaru tey mhm. parce que waajur moom xale bi moom xale bi doomam ñu indi bëggul nga wax mhm. am ñoom bëgguñu nga laal bëgguñu nga kaat bëgguñu nga def daal mooy bàyyil xale mu nekk ci ko neex mu daal dem te su boobaa dafay jur musiba. léegi beneen bi mooy lu bëree bëri bu ñu ko bëggee jàng dugal ci li nga xam mooy njàngum daara. su boobaa musiba dafay am. Mm. mooy daara li moo xam dafa am am lox la ci saanoo. Mm. mooy li fi mag ñu bàyyi woon radiyallahu anhum mm. mooy yaru sell gi jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu jaar ci daara lu mu moderniser moderniser. faw ñu mën cee jaar. mooy xale bi defal ko tarbiya. jàngal ko téere yi nga xam ne moom mooy téere yi mag ñi daan jàngale. lu mel ni laxda rek yu mel ni yeneen téere yoo xam dafay jàngal xale bi jàngin boo xam jàngin bu jaar yoon. waaye fekkee dañ ne kat dañoo bëgg moderniser daara waaye fexe ba xale bi tey ji dafa am neneen noo xam moom lañ koy jaarale mm. boppam moom fexe nañ ba bi si def loo xam mooy yar mooy na am xam-xam dem yoonam suba musiba dafa yar mm, mm. gis tey bu bëree bëri bi nga xam ni am na ci diggante eh, yaru démb ak yaru taw waaye nag di ñaan yàlla borom bi yàlla na yàlla dëgëral amiin amiin eh, boo lañu ko wéyjur yi nga xam te seen yitte yëpp moom mooy alquraanu karim bu la ko yàlla defal rek alhamdulilah di sant bu baax a baax eh, tabaarakallah mu nekk lu am solo ndax daara dama wax ne Eh, damay wax xale yi ne bu sa yaay baaxee sa papa baax mën ngaa tijji bon waaye doo tëj bon mm-hmm. waaw sa papa bu baaxee sa baax mën ngaa tijji bon waaye doo tëj bon waaye daara barke bi si ne boo ci dugalee njaboot même lu mu dëng dëng dëng dëng mm-hmm. même bu génnee yàlla da koy baaxal mm-hmm. tabaarakallah la léeg nga dégg ku naan la Euh, wax dëgg yàlla jaar naa daara sàngam mhm. même mën nga fa bañ a am xam-xam waaye mën nga fa am barke kon daara yàllaa ko barkeelal mhm. boppam mhm. tabaarakalla moo tax Nabi TV di ci def taxawaay yu am solo euh, di dem ci bërëbu daara yi di leen wan daara yi ak tarbiye bi nga xam ne tabaarakalla waa daara ji ñu ngi koy def xam nga Cheikh yi fa mu jógee ba tey teer si fii nga xam ne moom mooy euh, cité comico ci Mbambilor nan nga def ak waa cité bi ah alhamdulilahi rabbil tey ji bokk na ci ginnaaw yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bëree bari bari ci nit ñi ñu xam ma yaakaar naa ni ci bërëb bi moo ko waral mm-hmm. li tax mooy bërëb bi ci lu bëree bari fii la tàmbalee mm-hmm. bañ fii doog a ñëw nag euh, métti woon mbir moo gis rek tàmbali dafay xaw a doy waar mm-hmm. ndax booba nit ñi xamuñu la euh, xamuñu foo jugee xamuñu sa cosaan xamuñu la euh, boo rombee sax di nuyu yenn saa yi pour ñu fay la si dafay xaw a jafe waaye alhamdulilah rabbil la nga wax sànq ci njëlbeen gi mooy barke bi nekk ci daara. Mhm. ndax ku jaar daara ku nekk. Euh, la wax waxkat boo xoon rek mooy bu fekkee ni gëm nga sa bopp. Mhm. sellal mhm. jëm ci borom bi subxanahu wa taala boo dem ba ci àll ba sax. toog fa sax yàlla def ñu tàggat nit ñi fekk la fa. alhamdulilah bañ fi ñëwee. nekk ci mu métti lool ay ay jamono. waaye li ci sant way ji bu baax a baax ndax yenn saa yi mu métti lool location yi nga daw seeti leen ñu daal lay këmbal dara nga ñëw fay location bi toog. nekk ci noonu nekk ci noonu alhamdulilah dem ba commencé ci jàkka ji. ba ñu ne ba gis jàkk ji commencé xamante ak nit ñi. Mm-hmm. la yeneen ci bokkoon rek mooy jàkk dafay boole ay doomu aadama ay jullit. Mm-hmm. waaye tàmbali nit ñi dëkkandoo yi dëkkandoo yu baax ma macha allahu rabbi ñoom tam ñu am taxawaay lool lool sax ci daara ji. Mm-hmm. doon fekk fi ñoo xam ne ay nitu daara lañ mooy donte. tàmbali bi xamuñu la waaye bañ ne ba ci biir xam ni kat kii hmm. yittem yëpp mooy alxuraanu karim ñëw nañ fekk si la hmm. waaye fexe ba duggante yow hmm. daan ne lépp loo xam ni soxla ma ko moo xam ndox la moo xam lu mu mën a doon parce que amagoo ndox waaye del ñëw di root ci fii ci kër gi ngay tàmbali ak ñoom di dem noonu dem ba li ma la wax ñëw ba ci jàkka ji alhamdulilahi rabbi di dem di dem ba yàlla def ñu xamanteeg imaam yi fa tabarakallah di ko nuyu imaam ba imaam Diouf ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawee si jàkka ji euh, fa tabarakallah xamante daal di am suñu biir yàlla def ci def ba dugalante daal di am ñu tàmbali di am taxawaay ci li nga xam ne mooy ci jàkk ji waaye alhamdulilah dem na dem ba ñoom ñëpp seen yitt yëpp mooy daara ji hmm. wallahi alazim ndax cexeel gi ñu am ci daara ji léegi jam na ba dem na ba wallahi alazim bu wàccee kaamil amee tey ci cité bi lu mu mën a toll man la ñuy woone oustaz ko ñoo bëggoon a xale yi ngir mën a jàng alxuraan karim ndax yàlla dimbal nañ ci loolu mooy amul fenn foo xam dañu fiy jàng alquraan karim lu dul daara ji dafay taxaw jàng waaye bu daal ji lànkoon gàntal tey ji kenn du fi jàng alquraan karim kon loolu ndimbal yàlla waaye tamit ñoom seen taxawaay la am cofeel hmm. dem ba yàlla dimbal ñu ci jumaa ji tey ji alhamdulilahi rabbil alamin ñu dem ba nekk fi ñaareelu imam sak ajjum ñu fi taxaw di jiite di def bayaan nga gis tey ji ñu bare bëri ñu may ñi ma xam ñu bëree bëri ci bayaan lañu ma xamee hmm. mooy di taxaw di def bayaan ju dem ba ñu fi taxaw conférence lu mel noonu waaye conférence li ci yéeme mooy seen taxawaay ci ñoom mooy bu conférence a seen yitte yëpp moom mooy conférence bañ na boo seetaani vidéo yi ndaw ñi fi nekk ndaw si dëgg yëpp da gis ñu sol ay t-shirt yu vert mm-hmm. daal di taxaw ngir mën a encadrer li nga xam mooy conférence bi seen wéyjur daal di génn ubbi seen kër yi daal ne gàññi nañ ñëw dugg ci biir xam-xam am am tey lu fi mu jàmm am am te ñoom ñu téye seen bopp su boobaa dafay métti mm-hmm. waaye alhamdulilahi rabbil sama diggante ñoom doon loo xam ne rafet la wax dëgg yàlla te koo ci gis tey jii koo ci dajal bu lay ñaan daal la imaam yàlla na nga am kër fii waaye hmm, hmm. yàlla na boo fi jógee ndax yow tey sàkk nga ci biir li nga xam mooy cité bi te ñoom sag bi yëpp ñoom ñoo ko waral alhamdulilah rabbil alamin loolu moom mooy eh, contact bi nga xam ne am naa ko ñoom eh, tabarakallahu di la ñaan yàlla yàlla yàlla dëgëral hmm. ndax cité la boo xam ne cité militaire la ba ba ba am nga fi terrain waa am naa fi terrain sama conférence bu daaw jéeg eh, Ngagne Diop Ndiaye Diop monsieur le maire monsieur le maire tabarak di ko ñaanal yàlla hmm. euh, wax dëgg yàlla ba mu ñëwee ci conférence bi yam ci gis xale yi taxawaay bi ci am ak xale yi doon jàng alquraan karim ak ni mu mel mu am mbégte lool daal ne kat suñu yitte yëpp li war mooy fexe ba jàppale daara ji jox na la jox na la terrain bi ba nga jot. kii jot na ma terrain ba ñu ànd si wax dëgg yàlla si jour koor lañ dem teg première bi. ah teg nañu xeer. teg nañu xeer première bi ba tàmbali sax liggéey bi. liggéey bi incha allah ba mu ñëw dina ci jàpp lépp lu mu ci mën dina ci jàpp. dina mën a liggéey mën a àgg. Hmm. parce que boo xoolee daara ji ñaari kër la yoo xam ne ñu ngi ci location. ñu hmm. fay location te dafa hmm. metti ak euh, dund daara ji gi mel noonu waaye alhamdulilah ba jox nañu terrain bi ñu ngi ci liggéey bi. Ah, liggéeyu daara ja daal door na liggéey daal yi moom doon na. Ah, tabaarakallah tabaarakallah euh, kon mbokk yi mu ngi noonu euh, tey euh, ki ñu doon xamale mooy ki nga xam ne mooy Cheikh Bécaye Diakhaté mm-hmm. nekk feek ñoom jaata Diatta mm-hmm. tabaarakallah ak soxna yi tedd yële mm-hmm. nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci daara ji di ko jàppale ci liggéey bi ndax daara moom tabaarakallah yàllaa ko téyel boppam mm-hmm. eh, jàmbaar dëgg moom moo ko mën a téye mm-hmm. moo tax léeg-léeg nga dégg ko xam ne eh, ndeysaan ñàkk a xam daara mm-hmm. moo tax nga gis ko xam ne tey day jël lu nerte ko ci daara keroog damay déglu benn émission ma dégg lu ma xaw a lu ma xaw a frappé ñenn ñoo xam dañ naan bàjjanu gox lañ ñu ne dañuy jàppale daara ma dégg ñuy wax ci daara naan ñoom oustaz sàngam de ñu organiser wala ñu baax lañ waaye bokkuñu ci oustaz yi kàccoor yu saay saay bokkuñu ci nangam ma ne xoolal bu ñuy wax caricature diine dëgg-dëgg mooy ñii ah? waaye mu dem ba ca biir ma dégg mu ne waaye nag maire waroon nañoo gëstu ma ne ko hmm. nag yelwaankat yi mat yi yu mag yi dëgg dëgg dëgg mooy yéen waaw ndax tamit dem na ba ci biir mu naan kat maire waroon nañoo gëstu ma ne hmm. waaw ñii kat wax dëgg yàlla bu ñu demee ba kal ko ci seen yelwaan yi waa daara ji moom lu ne mën nañ leen ko teg waaye nag ñu muñ rek tey hmm. jàpp ci yàlla te xam ne pénc mi eh, daara ji moom moo ko mën a dëgëral moo ko mën a baaxal kon nag Euh, tey fokk ñu wane ñan ñooy sëriñu daara yi. Mm-hmm. seen wàllu taxawaay seen wàllu pas-pas tabaarakalla euh, tey nag ñu ñëwoon fii nga xam ne moom mooy euh, Comico tey mm-hmm. ni ko Cheikh Bekay waxee. Mm-hmm. daara ji door na. am nañ seen projet. tabaarakalla ñu ngi koy tabax waaye nag ba. Eh, yalwaanu daara ji rek moo ci dugg wala am na ñoo xam ne tamit ñu ngi ciy def seen yenn taxawaay pour jàppale daara ji. Hmm. pour mu mën a euh, ndax man damay kontaan lool ndax maa ngi gis doomu daara yi léegi ñoom ñëpp. Hmm. ñu ngi taxawal ay daara yoo xam ñoo ko moomal seen bopp. taxaw samp ko. Hmm. ngir daara ji mën a am mën a am jëmm ci Sénégal. gis nga oustaz alhamdulilah comme li nga wax rek sànq ci soxla yu nga doon wax. Euh, di ñaanal suñu daara yëpp yal yàlla may leen seen bopp. amiin ndax na foo xam ni lu bari bari bari bari mën nañoo taxaw ne dañuy xeexal daara. Mm-hmm. waaye li ci bari dañuy taxaw ngir xeex daara. Mm-hmm. jàppale ñu daara. su mm-hmm. baree bari. parce que dama koy faral di wax ci sama xutba lu baree bari. kii taxaw di xeexal xale bi naan kat bëgg naa euh, di xeex daan ne bëgg nañu maire wala président wala ministre ñëw tabaxal ñu école boo xam ne publique la. ngir seeni doom jàng. te mos ñoo taxaw daal di bëgg euh, di xeex daan ne kat bëgg nañu maire wala ministre tabaxal ñu école boo xam ni. day doon école daara bu mag boo xam ne suñu doom ñu fa jàngi alxuraan karim moo tax lu ci bëree bëri bëri xeex daara la mhm. kon li ma wax rek ñaanal leen yàlla yombal leen daara ñooy alhamdulilah tàmbali nañ liggéey bi waaye euh, lu bëree bëri ci yalwaanub daara ji la mhm. mooy euh, xam naa ne bu ma ne yalwaan dañu fu ñu bari dañuy foog ne xale yi dañuy génn yalwaan mhm. waaye xale yi génn ñu yalwaan yi ndax yaakaar naa ne fi internat la ñu ngi jàng alhamdulilah demuñu fenn waaye bu ma ne yalwaan daara ji mooy tey jii ñu mel ni yéen ñi nga xam da ngeen yëngu ci daara alhamdulilahi baali min ñooy toog woo a yenn saa yi mm. yónneel ab a cinq mille mm. ñii woo la yónneel cinquante mille ñii woo la yónneel cent mille francs mm. daanaka def nañ ko ci liggéey daara ji ñii toog daal di yónnee benn tonne ciment noonu la nekkee ci liggéey daara ji fondation nañ ba pare fondation nañ ba pare euh, ba yëkkati ñaari ñaari ñaari ñaari parce que comme fi ñu nekk ci location bi borom kër gi dafa soxla këram euh, ndax yaakaar naan ci weer wi la soxla waaye ñu waxtaan ak moom nekkat nañu may fii ak juin mhm. wala juillet su ko defee liggéey bi ñaari classes yi mën a yegg mhm. ngir daara ji mën a euh, tuxu foofu waaye ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax euh, ku mel ni Malick Diop mhm. xam ne mu ngi nekk États-Unis euh, di jàpp ci daara ji baax a baax baax a baax ak soxna Ndeye Ami mi nga xam ngi Italie moom tamit mooy li ma la ay nit daara yoo xam ni donte seen loxo jotul seen ginnaaw fi ñu ne waaye chaque weer dinañ yëkkati dara daal ne kat Mariam fa tabarakallahu ak euh, li nga xam ni moom mooy tabarakallahu euh, suñu wujj El Hadj Cheikh Moussa Diakhaté mm-hmm. moom tamit yitte bu yëpp mooy daara ji mm-hmm. ndax euh, weer mënta dee te yëkkatiwul dara mais dañ daara yi est weer mënta dee te yëkkatiwul lu mu néew na dañu koy cinquante mille dem si benn ngeen def ci liggéey daara yi est-ce ñu ngi leen di sant di mm-hmm. Ami moom tamit mu ngi France ñoom ay nit daara la ñoo xam ne seen yëpp moom ci loxo daara ji ak ñi nga xam ne tamit ñu ngi fi tabarakallahu lu mel ni cité bi nga xam ne ay euh, capital bi ñoom ñooñu euh, dinañ yëkkati ñoom tamit di def jàppale ci daara ji ak euh, nit daara yi daal fa tabarakallahu waaye daal Euh, projet bi boog fi mu toll li ñu am li ñu bëgg dëgg-dëgg moom amaguñu ko. Mhm. ndax yaakaar naa ni projet projet bu yaatu la boo xam ni. Mhm. Euh, ngir mën a àgg ay millions moo ko mën a tabax. Mhm, kon nekk waaye nag liñ ci am nekk ñu ngi ciy fexe di ci euh, ci yàlla may chaque weer am ci parent d'élève bi tamit ñu ngi ciy jël ci jéem incha allah ba yàlla kenn fu mu koy àggal rek. ñu daal koy àggali di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mu yombal. waaye di ci woo ñëpp ndax liggéey daara la. ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ngir liggéey mën a àgg. démb rek maa ngi koy wax daan nañu fexe jàpp ci liggéey bi ngir suñu yéene ci ndaw ñi mën a àgg Eh, ndax eh, yàlla dimbal nañu ba ñu de xaar. Hmm. fexe nañ ba lépp lu ñu am ci moyen ñu ngi ci nekk ngir mën a dem. Hmm. ndax lu tax mooy bu ñu seetaanee damay faral di wax sëriñ su bëree bari bari bari ñuy wax internat ñu bëree bari bari bari néew na tey xale yi di fay. Hmm. parce que lu tax mooy tey bu fekkee ni da ngay xaar ñi am fay rek. te ñi amul suba musiba dafay am waaye lu bëree bëri ba da ngay gis tey jii da ngay gis wuy woon fii indi doomam doom di jàng muy fay dem ba ci biir am jafe-jafe amatul mu fay doom mënoo bàyyi doomam da ngay fexe obligé téye doomam ngir mën koo jàngal mm. wala nga gis xale bi njëriñ bi ci moom mm. xale bi ni mu mel ci ci yàlla xel bi mu ko defal ak ni mu mel ci alquraan karim doo mën a bàyyi xale mu dem da ngay mujj xale bi di ko jàngal alquraan karim mm. waaye nag kon ñuy sant yàlla bu baax te yow ñëpp di ñaan yàlla yàlla yàlla mottali ko ah, di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala bépp yéen a ci am yàlla na ko yàlla mottali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi li moo nekkoon seen émission euh, daara yi tey nag ñu ñëwoon doon leen wan euh, ki nga xam ne rek mooy Cheikh Bekay Jaxate nga xam ne rek doom la ci sunu way jur bu baax boobu di alxaaji Cheikh Moussa Jaxate di hmm. représentant ëhlu kunti nekk foofu ca Tëngéej tabaarakàlla nekk docteur waaye nag tabaarakàlla nee naa ko malaat boo faj mu wér hmm. ndax tamit moom dalay faj. considéré na la feebar bi amul problème mhm. waaye léeg-léeg mu war la bindal ordinance ordinance bi da koy jël lem ko escorte ko bu ko escorte boo génnee ba ca biti boo ko dajjee même boo amoon tension sax yow dangay ngay wér <laughs> ndax danga nga fekk lu xonq wala lu vert yépp ci biir mm. yoo xam ne mën na jënd pomme mën na jënd banane mën na jënd lépp moo tax léeg-léeg dama koy wax ne ko cheikh bi xaw ma lu tax de waaye koo faj mu wér mm-hmm. la baax lool ah, mu nekk woy juram mm-hmm. ah, tey nag mu nekk fii nga xam ne moom mooy ah, cité comico di def liggéey bu taaru bi liggéey bu baax bi mm-hmm. di ñaan rek yàlla na yàlla dëgëral ko te sàmm ko waaye yàlla yi nag ñu ngi fi maa ngi gis léegi ñu baax ñu yàlla baaxal ñu xam ne mm. léegi dañuy jël xale mm. ci biir daara ji mm. di ko fayal njàngam ba xale bi buy mokkal alxuraan ñoo xam ne moor Diallo mii sama nijaay bi moo ko fayal jàngam te loolu lu am solo la mooy léeg-léeg ñi am moyen nañuy dem ci daara yi bu ñu bëgg a jàppale daara na alaaji Cheikh Bekaay man de damaa bëgg a jàpp ci alquran yan xale nga ma mën a jàppale pour ma leen di fayal chaque weer tabaarakalla loolu dana dundal daara kooku tamit yéen ñi nga xam ne yàlla may na leen tabaarakalla ngeen bàyyi ko xel ngir jàppale ko daara ji mm. waaye moo gën toog di naan man jàng naa alxuraan jaar naa jàng naa daara sàngam maa ngi fa jànge arxuraan man war a boo ne boo ne rek ma ma daanu ndax léegi da ngay gis ko naan la bu bëggee wax ci daara yi dara da ngay dañ lay tiimale mbi ko ngay wax ci taalibe yi eh. naan man jaar naa daara sàngam jàng fa arxuraan ma ne yow daal arxuraan nga jàng <laughs> tabarakallah kon yàlla na yàlla dëgëral waa daara ji jàppale leen eh, ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sëriñu daara yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji rawatina soxna yi hmm. sama nijaay bi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi hmm. rawatina ak montage bi mm. di ko ñaan yal na yàlla dëgëral ko soxna Xadi waaw yaayu daara ji tabaarakàlla yaayu daara ji soxna Xadi moom tamit yal na yàlla dëgëral ko te euh, barkeel njabootam di nuyu waa Njaasaan rawatina waa Guyett rawatina Sanc Buna euh, euh, ñoom ñëpp ñu nuyu leen bu baax a baax mu nekkoon seen bokk daara Souleymane Ndiaye teewaloon fi Nabi TV nekkoon fii nga xam ne mooy Mbambilor cité comico ànd koog nijaayam Mor Diallo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa